mbokk jullit yi yéen waa diaspora bi rawatina yéen ñi dëkkee ci réewu amérique yi di états-unis gannaaw ba nu sante sunu borom julli ci yonent bi sangu-sang yi seydina mohammed sallallahu islamic cultural foundation of america ICFA ci njiital imam mohammed Sakho ñoo am mbégte di leen yëgal weekend bi nu jagleel seydina mohammed di ko amal ñaar fukki fan ci weeru avril ca central family life centre 59 Ray street Staten Island New York muy septième édition fiq ci dund jullit bi ak ay borom xam-xam yu mag ak i jàngalekat ci ay université yu kawe programme bi 9 ba 1h du matin ñu koy door rek njàngum alxuraan ak ndongo yi yeg faa yi bernde ak waxtaan wi ci thème central bi di solo xam-xamu fiq ci dundu jullit bi nu fa sargal itam ay kilifa yu góor ak yu jigéen yu ràññiku lool ci seen taxawaay ci communauté bi professeur Souleymane Bachir Diagne Serigne Moustapha Senghor Chérif Al Gamal imam Jibril Ahmed bu juma Cheikh al Islam ca New York imam bu so bu communauté Mouride ca New York imam Cheikh Tidiane Ndaw jàkkay Darou Salaam New York oustaz Abdou Samad Mbay oustaz Souleymane Ndiaye njabootuk Assane Abdourahim soxna Safoura Tall al Foutiyu présidente nday Fatou Diagne présidente Awa Ndaw Adji Sali Sarr soxna Momi Sène présidente daïra Mame Diarra ci New York soxna Mariam Cissé présidente daïra Mame Fawa Dewele Serigne Sogi Cissé Mohamed Aslam ak soxna Mariam Ndour takku lool ci seen taxawaay ci communauté bi mbokki jullit yi yéen waa diaspora bi rawatina yéen waa États-Unis d'Amérique bés bago week-end culturel islamique Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di njeextalu ay bés bi nu jagleel yonent bi ñaar fukki fan ci weeru avril 2019 ci Central Family Life 59 Wright Street Staten Island New York 10 304 ak ICFA Islamic Cultural Foundation of America ci njiital imam Mohamed Sakho ñuy ñaan képp ku teewe bés bi yàlla nga dajeek ngërëmul Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam njaayum tikke yi ak réservation yi woote leen ci 347 596 20 36 347 596 20 36 wala icfa online point com